asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baal àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk dellu si nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko seen site bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale bi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 mi minam dégg ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi dafa jëm ci soxna si ñuy wax Ouleye Mané te nekk journaliste buy analyser ci wàllu politique ak ci réew mi euh, dama dégg nag mu def benn analyse bu ama am solo jàpp naa ne ca ginnaaw di ngeen ma defoon benn analyse bu mu defoon ci buggaan waaye ni mu traité woon Bougane moom mosuma gis ku ko traité sax maanaam ab se ko <laughs> maanaam traité ko traité boobu ma boo xamante ni moom sëñ bi loolu wala fi waa jaan ci suuf tànk ci suuf jaan ci suuf waaye dëgg-dëgg. li mu waxoon ci buggaan ba jonni tey bis bu jant biy fenk bay soo may gën a gis la mu waxoon ci bugaan ne dëgg la ndax ku ko maîtriser la woon <coughs> loolu it moo ko juralaat tey jii mu defaat benn analyse boo xamante ni man dëgg-dëgg ci laa yëg ne nag ndekete nag ñun ba léegi dese nañ ay journaliste waaye dese nañ ay jigéen ñu jàmbaare. Oleye Mané mi boo koy xool te di ko gis nii di nga gis ci moom yu bari di nga gis ci moom euh, ab force force bu mu yor. mooy force communication waaye force boobu li koy gunge mooy xam-xam force boobu li koy gunge mooy aw fit yooyu yëpp danga koy gis ci journalisme ànd ak loolu lépp nag da ngay gis ne analyse yu xóota xóota xóota xóota yu waxuma yuy jariñ benn ay ab kuréel wala luy jariñ ay ay benn nit ak yooyu déedéet li muy analyse jëriñ ay addu jariñ ab ab notion la sax laa wax luy jariñ ci àdduna la dafa def benn analyse bu am am solo ci Macky sàll eh, ñi mu fi bàyyi woon ñi nga xam ne moom la donale partem bi wala ñoo ci nekk di ñoŋ-ñoŋi ba léegi ay Aïssata Tall Sall ñoom ak <coughs> ay Omar Youm ñoom ak gars yi dañoo génn ne dañoo bind benn téere boo xam ne dañ koo def livre blanc pour boo déggee livre blanc bi daal mooy delloo ci Macky Sall njukkal mooy delloo ko ci njukkal xam naa ak Marème fay Sall moom ñu koy tagg ci ni mu yore woon Sénégal ak loolu yàpp naa loolu moo nekk ca livre ba moom mi nag mu ne livre boobu ñu bind euh, war nañ ko liir bu baax a baax càmbar ko ba xam ñoom liñ ci wax dëppoo nag liñ xam ci Macky Sall bi mu yoree Sénégal tuusan yi mu ko yor bu fekkee ne loolu dëppoo naag lim ci bind boobaa alhamdulilah mais su fekkee dëppoo wut ak ñoom lan ci bind ay sos la ay ay ay taggaate la ay neexalaate la loola bu boobaa lu sori dëgg la bu boobaa loola livre bi warunoo bàyyi état bi warul bàyyi livre bi di circuler mu ne ndax lan moo tax mu ne livre bi su fekkee ne dañ caa def ay taggaate def ca ay sargal Macky Sall loola ñun ñiy fekke woon Macky Sall bu fekkee ne du dëgg xam nañ ne du dëgg waaye nag suñ doom yay ñëw ëllëg di gis livre bi ñu bind ca ne Macky Sall def na lii def na lee te loolu bu boobaa loom ñoom mënunoo def lu gëm loola kon nag loolu yi ñuy gëm nag da nekk loo xamante ni lu leen di tromper la wala lu leen di trahir la wala lu ñuy sukkandiku la defe ne dëgg la te fekk ne sore na ak dëgg mu ne lool nan ko teel a def pétition pour jële fi livre bi <coughs> nee na waxuma jële fi livre bi waaye buñ ko fi jëlee dañuy def benn livre livre boo xamante ni livre noir lay doon livre rouge livre rouge boobu gis naa tey ci assemblée bi Cheikh Abdou Bara Dolly génne ko ne def na livre rouge waaye man damay yëg ne est-ce que jëlut idée xale bi Souleymane mi bu fekkee jëlu ko tamit sa nga xam ne Cheikh Abdou wax dëgg yàlla euh, gëw ma ne am na xam-xam boobu walla euh, mën a bind téere li téere laaj ci ay argument ak bind yaakaaruma ne Cheikh Abdou moom xelam kësam dong wala xam-xamu boppam dong mooy bindu lool dama jàpp na nag dafa profitoo jël idée bi xale bi wax euh, bu nu xoolee ne ñoom bind nañ livre ba defunu ca Aminifs bi nga xam ne lu mat quatre-vingt nangam cinq personnes dee nañ ci Macky Sall xëy na leen pour sama demin rafet pour sama sama ginnaaw ne bandang mooy ñii deewoon dañ leen di annulé kenn du ci waxati loola bu fekkee defuñu ko ca livre ba. ñaata nit ñoo ci ñàkk liggéey ñaata nit la seeni cër kii Macky Sall na loolu bu ci kenn waxati bu fekkee ne defu ca vingt neuf yi nga xam ne Prodac moom lañ doon topp ak quatre vingt quatorze milliards yi Ousmane Sonko waxoon ci Mamoun Diallo ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari ak li nga xam ne Cour de comptes génne woon na ko ci jamonoy mbas mi ci wàllu Mansour Faye ak ñeneen ak ñeneen bu fekkee loolu amut ca livre bi ak tëj yi nga xam ne tëj na ko Jomaay tëj ko Ousmane songo tëj ay nàngami nit yàq ay liggéey jël xaalis yoo xamante ni da koo pasar pasare jël ay loo xamante ni ab xaalis la bu ne xaalis nàngami milliard mu jënd ci arme jëloon recruter ay nervi ngir ñu rey ay doomi jàmbur di dóor ay jigéen ak guddi ak bëccëg loolu jàpp naa bu fekkee amul ca livre ba lii soxna Oleymaane wax loolu rek mooy solution bi amul beneen solution moo tax jigéen daal li wala fi wax ni Euh, dafa am ci yàlla saa buy yëkkati mbir bu koy yëkkati góor dana ko boole ak jigéen ñu am ay xel waaye Uleymaane mi ay analyse <coughs> boo koy déglu dëgg-dëgg te nit la woo koo xam ne ku ñeme dëgg la ku ñeme dëgg ki def dëgg ak dénoncer lu dul dëgg ñaar yooyu xam nga bokkul nit ki dafa ñeme ci nekkee ci dëgg di wax dëgg mais ñeme fitu dénoncer dëgg loolu am na ñu ko ñemewul moom mii daf koo ñeme daf koo ñeme. kon nag loolu bu fekkee ne wax na ko jàpp naa ne wax dëgg yàlla war na nañu gëstuwaat dafa mas a waxaat benn analyse bu am solo boo xam ne daf ko waxoon ci seex Yérim Seck mun ne seex Yérim de bu fekkoon ci réew mu normal la wala réew mu sérieux seex Yérim dana war a bind benn croix bu ruus walla benn rëdd bu ruus ne attention bu fekkoon ab xaj la ñuy wax téye message moytu leen xaj bi waaye mu wax ne Cheikh Yérim lim fi def koo xamante ni da nga dem. ñu condamné la ci loo xamante ni viol la kon dana waroon bind ci xale yi jigéen ne leen kii na ngeen def attention di ko moytu bu leen ko jege ndax mbir yi mu def ci ay gone yu matagul nangam violé doomam def ko kii ku nu jara def croix la kon Cheikh Yérim nee na bu doon ci réew mu sérieux Cheikh Yérim croix lañ koy def wala euh, liñ ruus la def fu mu nekk mais nag réew mi noonu la mel te lii mu wax dëgg yaakaar naa ne ku xam mbind ni muy dese. ak li wax ci Macky Sall bi ñu ko fiy jëlee bi ñu fi jëlee ñoñam mu ne jëlee gi ñu ko fi jëlee dafa àdduna bépp da cee teg bët ndax mag Sall bi ñu ko fiy jëlee dañ koo jëlee ci tour premier tour candidat bi mu fi posé woon premier tour lañ ko gagné cinquante quatre pour cent kon kooku bu fekkee am na benn njukkal bu ko Sénégalais yi di def mënta passé njukkal boobu mooy bàyyi ko. Macky Sall moo taxaw fii ñu ne ko ndax li nga def Sénégalais ndax regretté nga ci dara mu ne déedéet te nit ki ñi xam nañ ne ku jiite ku nekk. ñaar rek nga moo di wër positif ak négatif mooy ay lu baax looy def ak njuumte looy def li baax da nga cee war a sant yàlla li bon nga lu ci tuub ko waaye dane déedéet <coughs> Macky Sall moo toog fii ba bi muy jeexal dafa wax ne même bu nu àggee ci élection yi bu nu ko defee bu nu ko deful danaa def passage de service doyal naa sëkk ci senegal ñaata xaalis la jël pour dem Maroc pour jënd fa kër pour nekk fa ak jabar bi mu demee li lay won na ak i goroom lii lii wane na Macky Sall xaalis jël na ko ay goroom lan fi njëkk a jàpp ci xaalis yoo xamante ni Adama Faye yaay kii gis nga ko terrain soor Mansour Faye yooyu yëpp ñoo njëkk a am yoon ci ñoo xam ne sax du état bi kon jàpp naa euh, <laughs> lii Moustapha Cissé Lo taxaw na fi wax ne li ma xam ci Macky Sall wala li ma xam ci gouvernement bi wala xam ko ci ministère yi su ba leen ko waxoon ay yat ngeen di génne ay yat ay dorog la ñuy jaay ak nekk ci kii beeg te nan ma woo yooyu yëpp jàpp naa ne Moustapha Cissé Lo wax na ko kon nag yu mel nii sunu ci àggee xale bu jigéen bu toll ni def analyse bi mooy téere bi nañ ko arrêté nu mu gën a gaawee nu mu gën gaawee nañ ko arrêté euh, vérifier téere bi bu fekkee téere bu war a tasaaroo la ñu bàyyi ko mu tasaaroo bu tasaaroo wut ñu kii ko te ñu bindaat teyluwaat ko bu baax bindaat ci Macky Sall li nga xam ne def na ko ci ay njuumte ak ñaawteef yoo xamante ni gis ngeen ni eh, tey jii ñu ngi doon wax pour bëgg a tas conseil fii fii nga xam ne fi la ndaw si nekk Aminata Mbengue jaay ak fi Ablaye Daouda Diallo foofu ay xaritam la fa jël ak ay nit la fa jël yoo xamante ni wax nañ ne li ñuy financé toll na ci trente toll na ci seize milliards seize milliards seize milliards ñaata la mën a def ci dëkk ñaata la mën a def cim réew ñu jël ko jox ko ay nit ñoo xamante ni. ñenn ñi du nu mënunoo liggéey ñenn ñi da leen koo neexale woon jël xaalis bi mu pasar pasar amadu Sall ñaata kër lan wax la am fii ñaata parking na oto la am xam koo ci liggéeyoo yooyu yëpp doon ay ñaawteef Macky sàll yàq réew mi dem ba kilifa diine yi respect bi ñu waroon a am ak worma ji leen waroon a jox kenn joxu leen ko loole lépp Macky sàll moo ko fi def gis ngeen Macky Sall bi mu jógee ci réew mi gis ngeen léegi réew mi ni mu amee yar yi ci xaw donte am na kenn ku ci yare du wala ay benn teg ñaar ku mel ni Cheikh Omar Diagne ak yooyu nga xam ne xamul dara ci réew mi jàngul euh, alliwam guddul di liir ay téere yoo xamante ni xamul téere yi sax ñan ñoo ko bind du téere yu wér mu dikk di ko wàccee di wax naa lii moo xew ci àdduna bi lii moo nangam dem bay wax ci mbindum sëñ Tuubaa ci koo xam ba muy bind amoo sa benn xeet boo xamante ni bind na loolu jàpp naa ne ak ñàkk xam la ak ñàkk yareetu waaye ànd ak lépp daal lii nga xam ne Ouleymaane wax na ko moom ñu ngi koy njukkal delloo njukkal di ko félicité di wax ne li mu wax xañ na wax ju gàtt la mais xam-xam bu xóot la te lii mu wax histoire daf koy daf koy bind. kon lii mu wax nañ ci bàyyi xel képp ku bëgg am réew wala nga doon ab journaliste lii la ñuy xaar xalaat xalaat yu tond yu woyof yi nga xam ne yu terre yi mais xalaat bu xóot lañ soxla ci yow mais ndaw si xalaat bu xóot la bu màgg la boo xamante ni jàpp naa <coughs> tey kii. yeeyoo woon na lool jomaay def ko euh, nu mu tuddee conseil ministre de conseil wala mu boole ko ci ñu yore communication jàpp naa ne Uleymaan mi yaru yeeyoo na ko euh, ni nga xam ne wax dëgg yàlla moo ki ni wax ngoone jàpp naa ne Uley mii wax yàlla li mu wax ku ko vérifier wala nga xam dara ci réew nu muy doxe wala nga xam histoire ni mu fiy dese di nga xam ne lii mu wax dëgg la kon ñu ngi taxaw fi euh, Cheikh Abdou nag li furam bi moom mënoon na ko kii rek am na kooku bàyyi ba <laughs> seex doom dégg naa far ba naa léegi fan yi day day cukk seex coro seex du moom boobu ñu bàyyi ko mu ñëw rek moo gënoon de wax dëgg moom xam na ko bàyyi mu ñëw rek amut problème seex du moom nay dem ensemble wax dëgg yàlla loolu moom nan ko bàyyi mu ñëw rek nan ko bàyyi mu ñëw nga taxaw fi di ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine yaatal suñu wërsëg wala lu ci mujj ko rafet salaamaaleykum wa rahmatulah